résultat yi est ce que nekkul lu tuuti si temps bu ñu ko may. Mm-hmm. est ce que li mu waroon joxe la war a jox surtout si côté boo xoolee football local bi. Mm-hmm. daanaka ñi mu may sens ci côté joueur locaux yi bëriwul. est ce que résultat yi nekkul lu insuffisant. waaw je pense que su ñuy wax si football local bi moom je pense que foofu am na fa ay euh, ay lacunes. Mm-hmm. am na fa ay lacunes yu yu yu bëri parce que je pense que tey jii nii. Aliou euh, pratiquement euh, dans les stades yooyu fi ñu doon joué championnat local daanaka foo gis. il était il était il était constamment il était toujours absent. donc ça veut dire que parce que un entraîneur. c'est pas seulement yow entraîneur national na d'accord mais c'est pas seulement les joueurs qui sont à l'extérieur ñoo du ñooñu ak nay y nay nay nay nay coach du du si ñooñu ak nay intéressé il faut que na intéressé aussi si entre euh, joueurs joueurs locaux yu fi nekk yu jouer local pour gën leen may visibilité gën leen may confiance gën leen may war leen si projet bi neen bokk et que si vous êtes performant vous avez la chance de d'intégrer euh, l'équipe nationale je pense que côté boobu moom Euh, y a beaucoup à dire y a beaucoup à dire et euh, tey jii nii euh, il n'est plus il n'est plus là je pense que il faut entraîneur bii di ñëw bu bees bii di ñëw j'espère que moom il sera concentré sur euh, sur ça jéem a xool si si si si si si football football local bi parce que y a y a y a y a des talents qui sont là-bas yoo xam ne que mën nañu indil dara équipe nationale déjà soo xoolee si groupe équipe nationale tu sais tu vois que am na yenn joueurs yoo xam ne que yow xam na ni que ñii woo nañ leen ils sont appelés mais duñu jouer donc loolu place je pense que ay joueurs locaux mun nañ ko mun nañ ko mun nañ ko mun nañ ko remplacer mun nañ ko utiliser na may leen may leen seen chance et surtout pour promouvoir le le football local et je pense que aujourd'hui quand on voit euh, soo xoolee par rapport au groupe de joueurs qui composent l'équipe nationale joueurs yu fi jot a jaar yëpp et sur pratiquement dix ans mhm. sur trois ou quatre quatre coupes d'Afrique Sénégal gagné si benn man je pense que c'est c'est peu c'est que Sénégal man moom laa wax chaque fois nee naa ko actuellement ni si mhm. euh, décennie bi bu ñu nekk nii bu bu ñu nekk ni Sénégal war na toll si trois trois trois coupes d'Afrique et je pense que tey jii Euh, c'est surtout par rapport à la qualité des jeux par rapport à la qualité des jeux du compo qui compose euh, ce, ce, et je pense que tey jii nii déjà dana xool yenn Coupe d'Afrique benn bi dem nañu ba finale euh, contre Algérie ba ñu Algérie du dos ba bi euh, Cameroun moo ñu éliminé euh, quart de finale boo xam ne que Cameroun boo xam ne ñoo ko mënoon fuuf mhm. mais Cameroun pendant cent mu banku on n'a pas trouvé la solution pour pour pour, pour déjouer le piège camerounais et, marquer pour pour pour les faire pour, pour les éliminer ñu demoon ñoom Euh, euh, série pénalité ñi ñi éliminé ñi et tey jii nii bii passé bu Côte d'Ivoire bi une équipe bu Côte d'Ivoire boo xam ne dafa dee équipe bu dee ba noppi benn benn médd la ñu indiloon ñu war ko éliminer ñu war ko si continuer sini sini sini sini yoon et cinq minutes de jeu tu marques un but war a rey équipe bi et tu recules je pense qu'il y a beaucoup choses négatives yoo xam ne que qui se sont passées durant ces coupes d'Afrique yoo xam ne que coupe d'Afrique boobu ñëpp Sénégal la ñu doon jox fa la ñu doon dox la ñu doon jox fa la ñu joxoon favori malheureusement pour des problèmes de coaching des problèmes de choix et tout moo tax ba ñuy ba on n'a pas pu aller loin dans dans dans ces différentes coupes d'Afrique ba bu Cameroun bi passé ñi gañ ñi ñi gañ ñi gañ ko eh, ñu ko sant yàlla parce que je pense que Sénégal yàgg na daw mm-hmm. si titre champion champion d'Afrique yàlla instant boobu année boobu la ñu ko la ñu ko la ñu ko jagaloon ñu jël ko et que mu nekkoon lu neex loo xam ne que duñ ko fàtte mukk mm-hmm. te c'est à si loxo Aliou Cissé la jaar mm-hmm. et que moo nekkoon euh, yàlla loolu la bind loolu la bindoon je pense qu'il a fait de très bonnes choses mais maintenant euh, léegi euh, affaire yi mm-hmm. dafay beneen la ñuy commencé. il faut pas tromper sur le sur le sur sur le futur sur de l'équipe nationale du Sénégal il faudra faire le bon le bon le bon le bon choix je pense que tey jii nii euh, liggéey bi du yomb liggéey bi liggéey bi liggéey bi du yomb parce que faire un choix c'est très très très difficile c'est pas facile et que tey jii nii Sénégal on n'a plus le droit à l'erreur Sénégal c'est une nation attendue partout dans le monde et que tey jii nii il faudra faire le bon choix et aussi euh, xam euh, euh, les gens qui vont qui vont accompagner aussi cet entraîneur cet entraîneur, cet entraîneur national parce que je pense que c'est très important parce que dañuy xool si temps Aliou Cissé les gens ont beaucoup décrié cela di wax Aliou Aliou est mal entouré ñaa nit yi yàgg nañ ko ne Aliou est-ce que am na mm-hmm. c'est pas seulement se concentrer sur le choix de l'entraîneur principal il faut mm-hmm. aussi se concentrer sur les gens qui l'entourent ces gens les gens qui vont qui vont qui mm-hmm. l'accompagner aussi euh, je voulais juste euh, mettre euh, Cheikh li parce que moom laa doon sànq ne c'est important aussi am na ay points positifs am na ay points négatifs parce que aujourd'hui tey bu ñu waxee aussi Aliou par rapport tout qu'il a fait pour le pour l'équipe nationale du Sénégal yu positif yi yëpp mais aussi les points négatifs mun mun naa ko expliquer mooy comme ni ko Cheikh waxee je suis d'accord ak moom parce que boo xoolee Coupe d'Afrique bi nga xam ne moom la perte euh, contre Cameroun quart de finale mm-hmm. man je pense que boobu moo doon Coupe d'Afrique vrai bu Sénégal même bi ñuy perte contre Algérie mm-hmm. je pensais que aussi Coupe d'Afrique bu Sénégal la mm-hmm. bi ñuy gagner sax en Cameroun gagner nañ ko mais dañ ko gañee au début difficilement parce que y avait problème mu Covid yi amoon na détails yu bari yoo xam ne donc je pense que Coupe d'Afrique boobu mhm. moo gënoon difficile mhm. pour gagner ko kon ça dine même en Côte d'Ivoire ni ñu demee aussi mënoon nañ am tey minimum par par rapport ak cette génération minimum waroon nañ am deux à trois coupes d'Afrique ça mm-hmm. moom vraiment je suis d'accord mm-hmm. ce que Cheikh a dit parce que c'est des constats yoo xam ne dafa am c'est des trucs yoo xam ne c'est des faits normaux aussi Côte d'Ivoire la Sénégalais yi le a découragé en quelque sorte ci moom contre Côte d'Ivoire waaw contre Côte d'Ivoire après match boobu da Sénégal yi dañu am déception. Mm. dañu am déception parce que Coupe d'Afrique boobu moo mm. gën a indi déception. Mm. te équipe am na fa xam ne bu fa tolloo. am na parcours yoo xam ne bu ko ratee rek. Ah, day commencé chuter donc je pense que loolu muy commencé contre Côte d'Ivoire parce que yaakaar bi Sénégal yi amoon yëpp. Mm-hmm. mais pour waxante dëgg aussi mm-hmm. Sénégal pendant toutes ces années que Aliou Cissé nekk fi minimum mënoon am deux à trois Coupe d'Afrique. loolu moom franchement lu mën a nekk la beneen boo tamit Cheikh am na lu ma aussi c'est très important que mooy les joueurs locaux parce que les joueurs locaux aussi tamit il faut que ñuy nangu di leen jox chance aussi quand je dis il faut que ñu nangu di leen jox chance parce que un entraîneur l'équipe nationale aussi dala war a permettre même bu fekkee ne regroupement locaux yu am na les joueurs locaux am nañu regroupement même bu fekkee ne yow doo entraîneur bi ñëwal benn yoon wala ñaari yoon nga ñëw def séance ak ñoom yow sax nga jël séance def ko dafay nekk plus que de motivation pour les pour les pour pour jour locaux yi pour man aussi loolu aussi c' est des kii yoo xam ne c' est très très important donc je pense que ki di nekk prochain l' entraîneur foog muy bàyyi xel loolu mm-hmm. que ñu bañ a choisir ne mm-hmm. xale yi nekk Europe xale yi nekk France rek wala wala Angleterre wala mm-hmm. ñoom rek ñoo war parce que aussi tamit xale yi nekk fii tamit di rey seen bopp ñu leen tàggat tamit war nañ am benn chance bi aussi tamit parce que aussi tamit ñoo demoon gagné chan bi aussi dine am na si ay certains jours yoo xam ne yow international bi booy ñëw benn yoon wala ñaar yoon semaine bi mhm. di jël séance di koy def aussi tamit dina leen gën a mën a dimbali mais est-ce que tamit beneen aspect bi gën a tax euh, renouveler wuñu contrat bokk na ci suñu euh, quatre ou cinq matchs yu ñu am fii boo xoolee niil ak RDC niil ak Burkina Faso perte fii suñu dëkk ak Algérie est-ce que nekkul ak classement FIFA bi ni ñu ci wàccee euh, nekkoon ci dix-huit ñëw vingt-deux et cetera loolu noo ko noo ko gisee loolu moo tax voilà mais pour être honnête man li ma wax laay waxaat quoi. je répète encore Aline il a tout fait pour l'équipe nationale. mais dafa jotoon benn moment bu dem. il faut il la vérité. parce que pour man. boo nekkee pendant neuf ans. am na benn moment boo xam ne nga def loo xam ne kenn defu ko fi benn moment yow yaay dem. après ñëwaat. donc ça dina loolu c'était très clair.